indahu maa indahu lixtaaruhu lixtaaruhu muhammad yonent bi bu koy tànnal nee na yonent bi bu koy tànnal la gën la koy tànnal nee na li gën rek nag la koy tànnal moo ko yor la gën nag sëñ Tuubaa ko loolu waral birage man loolu moo waral birage man baara seni baara seni birage yu baari su yu baari su mu tax man mu tax man baari sa nee na nag nee na nag nañ ko moytu ci man sëñ Tuubaa nee na loolu moo moytu loolu am na loolu am loolu gën a wér nee na jaajëf borom Tuubaa nee na nu jaajëf jaajëf nu jaajëf borom Touba. sant nu jaajëf borom Touba. sant nu jaajëf. nee leen Bamba war na bépp jaam nee leen jaajëf borom Touba nee na nu jaajëf borom Touba nee na nu jaajëf sabri Serigne Mbacké Maram nee na nu jaajëf borom Ahmadu ni na nu jaajëf borom Ahmadu ni soxna Fatou Seye sama maye mam jaara